asalaamualeykum mbokki Sénégal asalaamualeykum mbokki àddina euh, dama ne ma defal leen vidéo bi en toute sérieuxité ci mbirum sécurité président bu ñu fàtte ne ñu ngi fal ñaari jeune le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko daanaka nañu ne président yu gën a dëggal seen bopp ci histoire Sénégal mën naa ne sax ci histoire Afrique ginnaaw buñ ci euh, génnee ki nga xam ne mooy Thomas Sankara ak euh, Nelson Mandela donc ñaari nit ñaa ngi nii yoo xam ne ci àdduna bi ñoom la ñu war a gën a sécuriser ñoom la ñu war a gën a toppatoo seen sécurité seen kaaraange gis nga kayit bi ngeen gis ma def ci kaw li journal la buy wax ci assassination benn président wu Amérique ak Amérique sécurité bi ni mu toll kii c'est le président John F Kennedy il était assassiné en 1963 defe naa xam ngeen ban année la ñu rey aussi le président Thomas Sankara ak yeneen président wu àdduna bi yoo xam ne jam nañ leen sax ay ballu fetal ak ñoomin seen am ñu ci mucc nag donc boo gisee démb mbiru Bougane Gueye Dany bi ñu man ñu war cee saluer gendarme bi te mu war a doon mbir mu sérieux te sénégalais yëpp war ko jëlee au sérieux ça c'est le président le plus jeune de notre histoire président la boo xam ne ak premier ministre boo xam ne dañu taxaw temm ne dañuy daaneel benn système système boo xam ne moom moo ñu noot depuis 1960 ñooñu seen sécurité ak seen kaarange dafa war a doon suñu priorité amul benn doomu aadama ci àdduna bi boo xam ne maqaamaam ak xam-xamam ak bëgg-bëggam war naa mën a surpasser loolu déjà Bougane Gueye Dany nga jóg di dem ci benn zone boo xam ne nee nañ la dañ ko sécuriser pour le moment parce que président de la république moo fa nekk. parce que xam nañ ne Bougane déjà bu fa demee ay bruit lay def ak ay sabotage mën na nekk sax ay nit rax ci yoo xam ne ay defkatu ñaawteef lañu pour tout simplement ñu def ñaawteef te nit ku mel ni Bougane boo ko xoolee ra euh, very li lii la américain di ne traître c'est boo ko xoolee donc Bougane dem defi ay caaxaanam ci wetu président boobu. ku ne sax yónni wuñu ko ba sabotage mën ci am ba président boobu ñàkk ci bakkanam xej na ci donc dama ne gendarme yooyu bu ñu fetaloon Bougane sax daggan na parce que la sécurité du président vient avant tout il faut ngeen xam ne sécurité présidentielle kenn du ko fooye te xale yi lay waxal may wax ak ndaw ñi may wax ak ñépp muy man ak keneen ak keneen a ci yem président sécurité du lu ñuy caaxaane moo tax ngeen gis bépp nit buy dajeeg président ak loo mën a doon ngeen gis ñu leen di palpeeg di leen fouiller di leen xool di xool seeni i bagage tout simplement parce que sécurité présidentielle moo dul ay caaxaan donc d' abord déjà maa ngi saluer ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange la président Bassirou Diomaye Diakhar fay di saluer protocole am parce que protocole aussi moom mooy ki nga xam ne moom mooy dox ci lépp loo xam ne mbirum président bi la donc bàyyi leen caaxaan Bougane Gueye Dany bu na bàyyi fontoo nit ñi na bàyyi dof-dof lu bi parce que la prochaine fois il peut prendre une balle sur la tête caaxaanam na ko yemale këram na ko yemale koñam ñun xam nañ ne du nit ku ànd ak xelam waaye na yemale caaxaanam këram mais di foo ba bëgg a li nga xam ne ñun moom mooy suñu état duñ ko nangu ñun dañuy xeex pour kaaraange le président Bassirou Diomaye Faye di xeex pour kaaraange la premier ministre Ousmane Sonko ndax ñu xeex suñu àdduna yépp sacrifier suñu vie prendre tous les risques du monde pour élire ces gens pour ñuy bàyyi ay caaxaankat di ñëw di fooye seen bu ñu ko nangu sénégalais yi nañu am ful na ñu am fayda voilà lii laa ne woon ma wax leen ko incha allahu rabbi nag dinaa ñëw ma def ci benn live bu bu bu bu bu yàgg pour mën a expliquer nit ñi danger yi ci nekk yépp ndax xam naa ne lépp xejul ci TikTok bi merci wa salaamualeykum wa rahmatulah barka